mooy wax jii ma wax dafa mel ni dañ koo bëgg a jël yóbbu ko ci foo xam ne yóbbu ma ko mooy yóbbu ko ci mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ Touba te doon ko liggéeyal bëgg a jël wax ji yóbbu ko ci ngir jublu ne na daf leen di sobantal wala daf leen di doyal te loolu la ma ca waxoon laa ci waxaat mosuma koo def te duma ko def te fas yéene ma koo def it ndax man mosuma wax Serigne Touba te tudduma leen mënoo waxtaane Serigne Touba yi te boole leen ci tey ñoom kenn ku ci nekk kër gune boo fa duggee xam ne wëllëre woowu la séq ak moom kon nag wax jii de kenn du ko yëkkati bëgg koo yóbbu tasaare ko ci adduna bi jublu ne gànnaa ngay xas mag ñaandoonu Serigne Touba wala ma ngi leen di ŋàññe bëgg caa ubbi bunt loola du ca mbooleem seeti seex yi ak seex yi maa ngi leen di jégalu maa ngi leen di balwaq te xam ne kenn ku ci nekk diwee sa maam na waaye ku ma leen gën a bëgg ñoom mag ñi amul te xamal ngeen ko seen bopp xamal ngeen seen pas-pas ak sama yitte ci ñoom it kon bu saytaane bëggee jaar ci lii kama jàmmaarool di wax ñu bëgg faa jiggi loola te li ma naqari ba may taxaw kenn ku ci nekk ci yéen boo ko yëgoon xam ko mu naqari la kon man la ma doon xeex laay xeexaat mooy wax ji benn mag menn magum Serigne Touba mu àndoon ak Serigne ko liggéeyal sa njaboot ne ci yoon wi di liggéey moo moo wax ci jëmul ci yow maa ngi leen di jéggalu nag mbooleem ku ko dégg te doon sëtub mag mu naqari soxool nga jàpp ne dama laa offensé wala wax ji dama ko jëme ci yow maa ngi lay balu ak maa ngi lay jégalu ngir jëmmi Serigne Touba waaye ngir jëmmi sa maam jooju nga xam ne tax na sa xol yëkkatiku maa ngi lay jégalu di la balu ak seen mbokk Gana Messere wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki jullit yi bokki taalib yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara euh, seen mbokk Gana Messere Maxtaar euh, audio bii nag li tax ma di ko def dama génn sax nekk bitim réew waaye kon maay toog ci jataay bi may toog mooy wax jii ma wax dafa mel ni dañ koo bëgg a jël yóbbu ko ci foo xam ne yóbbuma ma ko mooy yóbbu ko ci mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba te doon ko liggéeyal bëgg a jël wax ji yóbbu ko ci ngir jublu ne na daf leen di sobantal wala daf leen di doyalal te loolu la ma ca waxoon laa ci waxaat mësuma koo def te duma ko def te fas yéene koo def it ndax man mësumaa wax sëriñ Touba te tudduma leen mënoo waxtaane Serigne Touba it te boole leen ci tey ñoom kenn ku ci nekk kër gu ne boo fa duggee xam ne wëllëre woowu la siq ak moom kon nag wax jii de kenn du ko yëkkati bëgg koo yóbbu tasaare ko ci adduna bi jublu ne gànnaa ngay xas mag ñaandoonu Serigne Touba wala ma ngi leen di ŋàññe bëgg caa ubbi bunt loola du ca mbooleem sëti seex yi ak seex yi maa ngi leen di jégalu maa ngi leen di balwaaq te xam ne kenn ku ci nekk diwee sa maam na waaye ku ma leen gën a bëgg ñoom mag ñi amul te xamal ngeen ko seen bopp xamal ngeen seen pas-pas ak sama yitte ci ñoom it kon bu seytaane bëggee jaar ci lii kama jàmmaarool di wax ñu bëgg faa jiggi loola te li ma naqari ba may taxaw kenn ku ci nekk ci yéen boo ko yëgoon xam ko mu naqari la kon man la ma doon xeex xeexaat mooy wax ji benn mag menn magum Serigne Touba mu àndoon ak di ko liggéeyal sa njaboot ne ci yoon wi di liggéey moo moo wax ci jëmul ci yow maa ngi leen di jéggulu nag mbooleem ku ko dégg te doon sëtub mag mu naqari soxool nga jàpp ne dama laa offensé wala wax ji dama koo jëme ci yow maa ngi lay balu ak maa ngi lay jégalu ngir jëmmi Serigne Touba waaye ngir jëmmi sa maam jooju nga xam ne tax na sa xol yëkkatiku maa ngi lay jégalu di la balu ak seen mbokk Gana Messere wasalaamaaleykum wa rahmatullah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 waaw gaaw leen gaaw ngeen woote si 77 251 04 05 Tawfekh Production le leader dans son domaine. ndax ah, am lépp tawfeex ci sëriñ bi mën a may. gën noo gàtt noo